asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen siyaar di nuyu sunu gan gi Oustaz Alioune Sall di nuyu parents yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di nuyu ndongo yu baax ñoom itam ni ko sëñ waa daan waxee euh, daara ji daara la joo xam ne euh, dañuy jàng euh, ci biir semaine bi dañuy jàng dañuy jàng alterné ba alxames li ko dalee ñeenti waxtu ba juróom-ñaari waxtu moom lañ fiy nekk ak ngone gone yi ku ne xam na ne réew mi euh, dañuy xëy jàngi gone yi dañuy xëy jàngi ci école tubaab bi waaye bu ñu wàccee nag euh, ñu jubal fii ci daara ji ñu nekk feek ñoom li ko dalee ñeenti waxtu ba juróom-ñaari waxtu euh, ci lañuy ñuy nekk ak ñoom li ko dale altine ba alxames liñ fi jàng itam ginnaaw bu xale bi fere iji buñ fexee ba mu fere iji ku fere iji dañu lay dalal alxuraan bi nga di ko jàng. Euh, boo demee ba xaw a euh, dëgër ci liir beek yu mel noonu dañ la jàngal yenn téere feq yi lu mel ni laxdar yi danañ ko fiy jàngale danañ fi jàngale itam yenn ci téere Sëriñ Tuubaa yi lu mel ni tasawudu sixaar téere xam-xam yi danañ ko faral di di ko fi jàngale ba am nañ ci ñoo xamante ne euh, jàngal nañ leen laxdar yu ba mu jeex jàngal nañ leen itam tasawudu sixaar bi ba xam naa li ci des suuti la kon daal loolu mooy li nga xam ne moo aju ci wàllu njàng mi léeg itam dañ leen jàngalaale bind maanaam bind xat ak yi nga xam ne daal moo aju ci li gone gi war a xam ci naka lay jullee euh, naka lay euh, jàppe naka la ak yenn yi nga xam ne mënta ñàkk ci ab jullit mu xam ko loolu itam dinañ leen ko euh, di jàngale waaye li ëpp daal ci li nga xam ne moom lañ gën a concentré wu daal mooy fexe ba xale bi mën a liir bu baax ak alxuraan bi loolu daal lañ gën a lañ gën a lañ gën a lañ gën a yittewoo léeg-léeg nag ñu boolewaat ci yeneen yi lu mel ni vacances nga xam ne xëy na ci la jot gi ëpp ah booba itam ndax ci suba gi la ñuy jàng bu boobaa bu ñu demee ba école tëj ci suba gi la ñuy la jàng euh, ci la gën a yaatu ci la jot gi di gën a bari bu ko defee itam boobu itam dinañ ci nekk ak ñoom ba euh, ci la ñuy ëpp yeneen matières yi nga xam ne warees na koo jàng ci leen koy jàngal euh, kon daal xam naa di sant nag parents d'élèves yëpp ak waajur yëpp ci taxawaay wi ak nii ñu jàppale ku ne xam ne réew mi. Euh, réew la moo xamante ne yu bare bari euh, bokkut ak Sénégal te am njàng itam dafa am la mu laaj xëy na ci Sénégal ak yu mel noonu bokkut ak fii euh, waaye teewut ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax. xam ne itam dañoo bëgg lu jafe muy alxuraan kon nag ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax ci kóolute goo nga xam ne wóolu nañ ñu ko ndax doom dafa for ci nit ku la ko jox rek jàpp naa ne wóolu na la kon nag ñu ñu delloo ñoo ñaanal yàlla ba li nga xam ne bëgg nañ ko ci xale yi xam ne suñuy doom la ak suñuy jarbaat suñu borom defal ñu ci tawféex ba liñ ci bëgg lépp ñu am ko kon xam naa duñu guddal ci kàddu yi dañuy sant bu baax a baax nag ci euh, teewaay bi di rafetlu rek teewaay bi baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa euh, sëriñ bi ñu ngi lay siyaar di la dalal jàmm ci barabul islam bi euh, di la masawu coono tam ci coonoy xat-xati dëkk bi. Eh, daanaka wax ji sax mën naa bañ a guddi ndax lu ci ëppoon solo sëñ Fallou Sarr ak sëñ Waadaan mën nañ ko wax fi ñuy waxee maanaam mooy ci barab bi nga xam ni bi ko sëñ bi sàkku mu commencé ca barabu kër sëriñ Touba gële ca Pontevico barabu lislaam la ko tuddoon ñu di ko jët ci xam ak di ci xamlu ba yàlla dogal na tey parents élèves yi nekk fii wax dëgg yàlla ñu boole seen doole ak seen kàttan jël sëriñ daara yi nga xam ne ñu ngi def ci xale yi xam ñu sant ci lool nag di parents élèves yëpp sant ci sëriñ daara yi ndax di xamal sa doom diine yaakaar naa dara sutu ko sutu ko ci ci ci yoon wi waaw wax dëgg yàlla daal sant nañ ba fa sant yegg tey ñaan nga bëgg ñaanalal nu parents d'élèves yi ñu gën a dollee am kàttan gu ñu mën a liggéeyal diine ji ba nga xam ni parents d'élèves yi itam sëriñ daara yi maanaam liñ bëgg ci xale yi ñu am ko waaw ñu xam seen diine ndax réew mi xat na ku la ci dimbali ci sa diine dese deseelatu la dara waaw nga ñaanalal leen lu baax baax a baax ñu wax dëgg yàlla sant wax ji daal mën naa bañ a gudd dañoo kontaan ba xam ne ni daal amuñu <laughs> jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen balaax bu baax di leen balaax di dalal sunu gan gi oustaz ñu ngi lay wax axlan wa lan ñëw nga ci barabu lislaam barab bi dañ koo jël sof ko ci liggéeyu Cheikh Mouhamadou Mourtala ndaxte lépp luñ ko mës a wax. barabu lislaam rek la mës bëgg même dem na ba ci kër gee bañ koy ut luñ ko mës wax kërug lislaam moo tax ñu jël sunu liggéey bi sof ko ci liggéeyam booba ñu xam ni am na fi tout tànk yi nga xamante ni fii lañu gàñee àdduna am na fi ñi nga xamante ni seeni waajur dañ leen indi fii te nit ki mënoo xam dara te xamuloo sa diine kon la daloon Espagne dinañu dal ndaxte ñun ñi xawma ma tey wala suba la bu ñu fi jógee bu sunu doom yi xamul dara la daloon Espagne dinañu dal kon ñu ngi lay sant bu baax ci ñëw gi nga fi ñëw di santit wayjur yi nga xamante ni ñoom lañu àndal liggéey bi duma lim turu kenn wante ñi fi toog ñëpp kenn ku ci nekk am na banqaas bi nga xamante ni yor nga ko ci daara ji muy ci ñi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi muy ñi nga xamante ni ñoo yore finance bi muy ñi nga xamante ni ñoo yore volontaire bi parce que dem na ba fi mu toll ni daara ji dafa am ay wayjur yu volontaire ne chaque weer ñoom ñoo koy fay ci bi ñuy commencé liggéey bi muy ceeb bee nga gis ne dañ ko fee def tamit muy am koom mi nga xamante ne da koy dugal ci daara ji euh, te it am na fi tamit ñi nga xamante ne dañoo sasoo tamit weer wu dee wu nekk ñu yëkkati xaalis bu takku di ko def ci daara ji leneen tamit mu am ay jafe-jafe yi nga xamante ne amoon nañ ko fi ci ay jamono parce que nit ki fépp fooy dem xamuloo kañ ngay wàccu liggéey am fi ñi nga xamante ni ay jigéen bu ñu fi daan wàcc liggéey daanañ am jafe-jafe pour mën leen a am ku leen defaral ci ñun murit yi wax dëgg yàlla sëñ Waadaan ak sëñ Fallou Sarr jàngal nañ soxna yi ba nga xamante ni soxna su fi wàccate liggéey ñoom danañ leen defar ci anam bu sell kon loolu ñu ngi leen ciy sant leneen li ci des muy tuut tànk yi nga xamante ni dañ fee nekk ma am li nga xamante ni damaa bëgg nga gën koo leeral mu leer ci seeni bopp xam parce que lislaam mooy li nga xamante ne moo gën a set lépp ki nga xamante ne way juróom dañu koo takk ki nga xamante ni bala bu la dara laalee bala ngaa def dara da ngay dem raxasu ji wala nga jàpp julli kon lislaam lu ko gën a sell amul dama bëgg ngeen xam ni nasaraan yi yéen a leen gën ci ndey yéen a leen gën ci bàyyi yéen a leen gën juddu ngeen xam lan mooy lislaam kon sëñ bi maa ngi jégalu bu baax a baax di la sant bu baax di la gërëm lépp lu ma ci wax li nga xamante ni dafa dëng nangeen ngeen ma ko jégal doomu aadama moom matul lu ma ci wax lu jubit na ngeen xam ni jubal ak jubbanti dong moom laa ko jëlee moom laa koy waxee. fii tamit dañ fiy def di fi liggéeyal sëriñ Touba weer wu nekk danañ fi tase sëñ Sidi mu sëñ Abdou borom dër bi mooy fi joxoon benn ndigal. chaque weer nañ fi wàcc ñetti kaamil ku fi wàcc liggéey danañ la boole ci ñaan googa weer wu nekk danañ ko def bañ ko commencé léegi léegi mu tàmmali ay at yu bari way jur yeeg ñëpp dañ ci jàpp te buñ ko defee ba noppi dañ fi togg ay xéewal mbooloo mi yëpp ñëw ci leneen li ci des muy euh, sëñ Waadaan junj na ko sànq muy soxna Aïda moom it sëñ bi na ko ñaanal sunu borom yokk xam-xamam ndaxte mu ngi ci liggéey ci tuut tànk yi ndaxte dafa ma woo benn bis ne ma sëñ bi de man dafa am li nga xam ne dama ko nësër ma ne ko lan la mu ne ma de xam nga ñun fii dañuy manqué ay bàjjen dañuy manqué ay tànta ndaxte lu ci bari lu say wëyjur defut say tànta wala say bàjjen ñoo koy def ci xale yi ma bëggoon léeg-léeg may tase xale yi di leen waajal nan la ñu war a nekkee ci seen néegub sëy ndaxte fii bari na fi ñi nga xamante ni am nañ fi seeni doom mais xamuñu nan la ñuy waajee yéen si wëyjur yi seen bopp xamuñu nan la ñuy toogee seen néegub sëy te jigéen ñu ci bari ñi ngi sëy di foye seenub sëy te xamuñu lan moo leen war seen digganteeg sunu borom comme que yéen ay boromi xam-xam ngeen loolu lépp bëgg nañ nga am loo ci leeral soxna yi ba ñu gën koo xam asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di jégg lu baax. kon di santaat bokki dëkkandoo yëpp rek ñoom ñëpp comme niñ leen ko waxee wax dëgg yàlla euh, ku ne xam na ni vendredi xat na waaye bàyyi ngeen seen yitte yéen ñëpp ñëw teew. Euh, gàttandul ñu sunu gan gi ñu ànd ak moom euh, di sant tam sunu soxna itam ñoom it wax dëgg yàlla lu ñu def defit saa su dañ koy ànd ak ñoom ñoom itam seen taxawaay macha allah ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm kon xam naa rek dañuy bàyyee kàddu gi ak oustaz incha allahu taala. bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yàlla na yàlla may dund gu barkeel. ñoo ngi am mbégte lool ci toog ci barab bii am mbégte lool ci kàddu yu ñu fi dégg am mbégte lool ci liggéey bi ni muy doxe loolu doo nga fi nekk nag ki yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa dafa am bés mu ñëw ca jàkkam ja jàkka ji nag barab bu rëy la mu séen ay groupe toog mu ñëw ci groupe laaj leen ñu ne ko dañuy waxtaan mu dem ci benn group laaj leen ne ko ñun de dañuy waxtaani démb mooy dem baag ci benn groupe laaj leen ñu ne ko ñun dañuy jàngaaka jàngale mu daal toog ca groupe ba ne leen ci yéen ñi la ma yàlla yónni keroog loolu leen wax yéen ñii ci yéen la ma yàlla yónni sunu boroom nag xam naa suuf yëpp moo ko moom waaye daf ca am yoo xam ne day wax ne maa ko moom barab yëpp nag moo ko moom waaye daf ci am yoo xam ne day wax ne bii moom maa ko moom ndax ba mu ne wa annal masaajida lillaahi la ca teg mu mel ni loolu nga xam ne mooy barab bi moomale boppam ku ciy liggéey ku nekk yëgal ne yaa ngi koy xëyal moom ku cay gont ku ne yëgal ne yaa ngi koy gontal kenn defalu fi nag nit lu gën xëyal yàlla mbaa gontal ko sunu mag ñi daaw ñu yemale boroom xam-xam ak dara euh, boo jëlee ku mel ni maam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu ñaara fa daan ñëw ki am xam-xam ak ki ñëw te amul xam-xam boo ñëwaan ñu ne xam nga day jël ñi nga xam ne jàpp na ñoom xamuñu ñoom ñoo lay takkalum néeg ut la banti xat soosal la daa wutal lay këyit ngay bind yow yaay féetewoo toog di bind mu wutal la ku lay attaayaal ku lay lakkal yàpp ak ku lay jox loo yóbbu sa kër parce yow da xam cër boobu lan wàcce ku xam moo tax soo fekkee lu mel nii nit ñi di ko def boo amee sens danga cay bokk te kenn bañ la caa mën ndax liggéeyu àdduna ñett a ko yor man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi ko yor aw bi lisaanihi ko yor aw bi qalbihi moo ko yor liggéey bu dox loo ko doxal mooy loxo mbaaw làmmiñ bàyyi xalaat loxo nag xam ngeen lii liggéeyam làmmiñ it xam nañ lii liggéeyam xol nag liggéeyam amul solo moo tax wa dalika mhm. addaaful imaan te juñu nga fi léegi a ak Cheikh Mouhamadul Moxtada radiyallahu taala anhu ci dimension yi sëriñ bi amoon daf ci feeñal benn bu ñu wax xam-xam ak tasaare xam-xam mu ne ko def mu ko doon def ci benn méthode boo xam ne ku te dëkk sa ngeganaay tuuti boo ko xalaatee gis muy bunt bu yaatu mooy fexe ay barab fii ci barab bi fexe ay barab fii ci barab bi gis nga barab yu mel nii su fekkoon weeru jot ngeen tase fi wàccewu leen kaamil zikkaru leen wirdowu leen añu leen xanaa danoo tase rek di xoolante ba mu neex na rek nu ñibbi li ne ci tuyaa ba kenn xamu nu mu toll tase rek jànguñu dara dañu toog rek di xoolante ba mu ñaax dañu ne ba suba ak jàmm waxuma laa nag boo ci booleel di ci rax yeneen boo ci booleel di ci rax yeneen kon leneen lay tekki te loolu ñuy tuddee alxuraan nga xam ne ci la yàlla def lépp luy solution ngir solutionner suñu problème yi ci la yàlla def su fekkee miñ ci bopp nit ki walla ci dënnam am na yu baree baree bari kooku nit yooyu du ko dal feebari xol yeeg feebari jikko yeeg yooyu du dal ku mel noonu moo tax mag ñu fonkoon ko lool te xam fi nga xam ne fi la jóge ak fi la jëm kon nag nun suñu fekkee jataay bu mel nii wax dëgg yàlla am yéene ngeen nu tiyaaba ba tax ngeen jox nu kàddu moo leen ciy gërëm bu baax a baax di leen ci sant ndax man lii mooy sama dund waaw lii mooy suma dund musuma jàng dara dara dara jànguma bëree jànguma karaté jànguma football mënuma fii ba ñu daan bay ca àll ba sax aayum woon ci mbay yàlla xam na ko lenn dong dong képp ci laa nekkoon mooy jàng ba ma ca noppee muy jéem a jàngale maa ngi seetaan mbërki dem benn video bu xaadim sàmb def di ca necc li bi ñu daan rëbbi lëg waaw maa ngi bokkoon ci gone yi dàq daw ca daara ja waaye mënuma bëri ndax awma doole waaye nag jàng ak jàngale la yonent bi wax ne ña ca nekk lañ nekk ko gënal lépp lu moom xayrukum man taallama alqurana wa allama kon nag loolu ku ci nekk yaa ngi nekk ci lu rëy comme ñoom sëñ Fallou Sarr mi ak sëñ jéeréeg ñi mel ni ñoom waaye yonent bi nag ñaar doo nga baax ci xeet wi al aalimu wal mutaallimu sharikaani fil xayri wa saayiru si nag laa xayra fiihim maanaam ku nekkul ci njàngale mi nekkoo di jàngale yontu ne nekkoo fenn moom kay nekkal ci njàng mi mbaa nga nekk ci njàngale mi rek njàngale mi nag mooy ñii di jàngale ñi ne ci njàng mi mooy yéen ñii ñu tudd ay parent walla ay xarit walla ay am di jàmm bay soppe te daara ñàkk caa am doom téewul muy sa daara ndax daara benn barab la bu ñu tuddee réserve réserve mooy ñii ñooy pro ñooy formé bu ëllëgee loolu xuma di daw te mooy ñu jóge fii manque ay taxawu moo waral bu xale juddoo ñu ne daw leen ca suñu daan buy fer ñu ne dellu leen am déet buñ koy maye ñu ne dellu leen buñ koy may ñu ne dellu leen am déet buñ koy muur muse yi ñu ne dellu leen ah? bu jëlee weer ñu ne dellu leen bu fi jógee di wuy ji borom ñu ne dellu leen moo tax yéen <laughs> ku am sens day xaritoog yéen waaw ku am sens ku am sens da nga naan ci daara taq ci ripp loolu waa ji di wax ndax danaay wax sëñ Mbàkke Sylla ne ko boo dëkkee ci koñ bi di jàngale alxuraan am ku la fonk lool lu mu yët la bés bu génnee àdduna boo ko tiimee boo ko jullewu ci affaire am baax am déet waaye bu dëkkee ci koñ bi fu mu la romb di mecciti ko di xool ci barab fu ne mu xool fa buñ la ko jullee ko nga tiim ko doo jullee de da koy xas kay am de koy tiim naan yow ah, yaakaar nga ne doo fanaan doo doo yendu bii de morom bi tiitaru xanaa xamu ne tey da koy xase rek moo tax daara leneen la lu waaye man nanga ko cay def lu waaye xam na ko cee wax te nangoo bokk ca bam xam la jàng ngeen ci mbind sëriñ bi nit ku génn àdduna te daawul dem jàkka mu ne buñ ko indee ci jàkka ji jàkka ji day wax ñi ko indi yàlla bu mu leen raw ndax kii ba muy man daawu fi ñëw daawu fi jege dégg naa fi léegi soxna si ne mooy seetal barab bi sallallahu alayhi wa sallam daa am benn bis muy waxtaan ba mu yàgg mu ne waa yéen ana soxna diw mu laaj ko saaba yi ñu ne ko gaañu na mu ne ah te wax leen ma ko ñu ne ko gaañu na war naa mat ñeenti fan war naa mat ñeenti fan mu ne yéen ñii ku ci xam barab bañ ko am ku ne ko àndoon naa ca rob ba mu ne ko doxal ñu dem yonent bii ji waa ji jiitu ñu dox ba mu ne ko fii lañ ko rob keroog ca ca ca armeel yi la ko jullee te mu ci biir bàmmeelam ñu ne ko lu xew mu ne kii moo doon toppatoo jàkk ji ndax mu set ndax mu mu mu mu yiw kon bu génnee àdduna su ma ko yëgoon maa jiite rob ba comme yëguma ko nag ba yëgul leen ma ko mu fekk ko fii mu tëdd jullee ko fa te ci liñ xam ci démb yi lislaam soxna soosu lañ gis ne moom la yonent bi fekk ca xabroom tiim ko jullee ko ndax jëfum jooju loolu nag xeweegut ba léegi loola xeweegut ba léegi kon nag fu daara ji mën a nekk fexe leen ba bokk fexe leen ba xam fexeel ba xam leen bu leen ci kenn man seytaane nag juróomi nit ñu ànd lay bañ waaye bu mu leen ko mayal ndax ay yasami nii law inde jeewal jàpp leen ko foofu mooy seytaane daal na fexe ba ba seexlu na rek sama njaatige lee Cheikh Ibrahima dama koy wax ne boo jàngee sóoratu naas yi boo ne àll si waswisu loo ciy teg fii suduuri naasi allasi yuwaswisu fii suduuri mooy seytaane képp kuñ na la ko baax la mooy la da nga koo xamut kuñ na la day def ci daara ji mooy la yàlla taxut waaw bu ñu ne nañ ko tisee mu ne gars dañ koy lekk seytaane maa la ko wax de bu ñu fi boole woon mille euros jox la ko yow mii dugg nga xanaa nga ba a am dara lu bees wala yooyu waaye boo fi amoon geneen xéewal changé oto ñu ne moom la seetaane waaw yu was fisu nun lay def ba ba ba kenn du joxe waa def ñu ne yonent bi alayhi salaam damaa génne asaka nu ma koy def mun ne ko jox ko sa kilifa mu ne ko su ko lekkee nag mu ne ko lu ci sa yoon mais ñun formation boobu amaguñu ko bu dee jigéen ñi ci lay gën a métti buñ ko cotisé ba am quarante euro képp jox la ko nga ñëw ak kaala go bees hmm. ñu ne xaalis bi da la jëndee kaala gi am ko ne maa teg sa bët kay yàlla xam na ko léegi nag loolu mag ñi dañ ko sóoraale woon ñoom fexe ba seen xol yi. ñu tëj ko añaane ko seetaane ba du nekk biroom ginnaaw yu was fisu fisu dóori naas nga ne ko man sama dënd moom du nekk sa bureau jàmm na ñooy du dëgg yëf yi nag comme mbirum sunu borom la lu ci waay def moom xam na moom yëg na moom gis na waxul li amalu fas yarallahu amalakum wa rasuluhu wal muminin sunu borom ne na liggéey leen man danaa ko gis te ku ma gis sab liggéey danaa ko wan Muhammad te su ma ko wanee moo koy wan gaa yi kon yow bul ko wane liggéeyal rek yal na yàlla def ci barke tuut tànk yi fi nekk nga xam ne ñooy liifantu ñuy def ci ñoom alxuraan loolooy li li sunu borom wax ne moom rekk moo tax euh, mbugalatul nit ñi ndax yaakaar gu mu am ci ñoom te jàngeen ca téere ba waxay suma tabasmala sabiyu waaw Sëriñ Tuubaa bind na ca téereem ba masaalig boo jàppee ci sa loxol doom indi jox ko jàngalekat bi mu ne ko baa ne ko siin ne ko miim baa gi baal nañ ak jàngalekat bii siin gi baal nañ gone gi amaguti bàkkaar miim gi baal nañuy waajuram ba siin mi loolu nag la yemagum léegi nag su àggee ca alif laam ra mi adam del miim del xaw ma affaire yooyu <laughs> ginnaaw moom ñett rek la waxagum ñu baal waa ji jàngale baal ki amaguti bàkkaar baal ndey ak loolu kenn mënu koo fay ko xam nag luy bàkkaar ku nag luy bàkkaar léegi su fekkee dafa weesu nag ba far fëri ijji léeg-léeg ñu jël téere bu tedd bi jox ko ci jukki mu jàng ca tuuti ah loolu doy na waar maama sam senn soxna suma fekk jëppal mu ne ma am naay doom ba saatlu naa am naay sët kii dama koo ñaan baayam mu may dama koo ñaan baayam mu may ma ko ma bëgg koo dugal alxuraan mu ne ma moo xam mokkal na moo xam mokkalut damay ñaan yàlla rek su ma faatoo bu mbooloo mooy séddoo ma am kenn ku ma xam ne ci sama deret la jóge yurub jukki loolu la ma soxna su wax keroog daal ko indi ca daara ja ma ne ko nangam la ñuy fay mu ne ma buñ boo ma laajoon ñaaram ma jox ko ñoog moom ba benn bis ñu woo ko de ko xale bi day tere alxuraan mu ne ma da ngay wax rek da wax rek ma ne ko tey jii lay talaaxuwaan bàqara ba naasi moom moom fekkewu ko maire bi parce que euh, attanuñ ko gàddu ko pour indi ko te ma nga tëdd ak jooy ya mu ne ma ku ma ko waxoon ma wedd ko ma ne ko mi ngi ginnaaw yow loolu nga yéene woon ci la yàlla lay fekk kon nag yàlla na yàlla yokk barke ci daara ji jàppale leen ci def ci barke bu baax a baax lu ngeen ci séentu ci tuyaaba yàlla na ngeen ci am lu ko ëpp ngeen séentu yàlla na ci am lu ko ëpp ku ci nekk ci ñu nit kuñ ne ci def nga ci daara ji soññu nañ la ñaanal nañ la du dëgg lépp ñëpp rek la waaye dooloo mastata min quwa la sëñ Cheikh Mouhamadou Muxtaar waxoon nañ koy bind ci kaar yi waa waaye dooloo mastata min quwa mooy ki nga xam ne daa bëgg màbb li nga yor boo ko waajulut bu jógee bu kay ma ba day yomb kon nag lañ leen waajal macha allah te ñaan borom bi mu def barke yoo ko xéewal soxna yi ñoo ngi leen di jaajëfal baax a baax ndax yàlla bu ko leeroon ne góor mën naa régler àdduna du bind jigéen am déet su ko nun góor ñi mën nañoo régler nun dong la fi indi waaye am na yooyu mënuñu ko hmm? am na yooyu ñee mënuñu ko suñu boolee suñuy doole rek door koo man nag waaw waaw yaamuruna bil maaruf wa yanhawna anil munkar la ko jiitu mooy al muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaa baad yàlla nee na bu ngeen bu ngeen àndee boole seeni doole rek lu ngeen song mën koo daan yal na yàlla boole defal tawfiix maa ngi leen di eh, présenté sama njaatigale Ibrahima Ndiaye def naa am na ñu ko xam ci yéen wala ñu bari sax macha allah moo bokk dëkk Géedi man doo donc laa xam ji Italie yeneen yi mun maa liir seen tur yi ay hospitalito xaw ma yooyu seen xaw ma ko waaye Géedi ma macha allah moo ko euh, Moustapha mii ne ci wetam ñaari su ma ñëwee ci dëkk bi léeg-léeg danañ aménager seen i programme ba nga xam ne fu may dem ñoo may yóbbu yàlla fay leen ci loolu la leen defal leen tawfiix man tam daara laa yor ni seen daara ji walla sax ay daara ni ci jéem di nab nabi ba bëccëg maa nga ca waaw yàlla na yàlla lu barke def ci daara yëpp tawfiix ba xale yi mën cee jàng xame ci daara it nag bañu nekk daaray xale yi képp bañ nekk daara jigéen ñi képp waaye mu nekk daaray gaa yi encore waaw ndax nit saa boo xëyee jàng benn bind benn bind yonent bi nee na am nga tuyaabay ku goreel juróom benn jaam ca doomi Ismaayila ya boo jëlee benn bind te sëñ ba nee na wa man nahaakumu an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami sëñ bi nee na ku leen tee jàng bésu boobu la leen tàmbalee sànq hmm? euh, sunu génn góor ca Louga sëñ Abbas Sall xam naa dégg ngeen ko bis bi mu génnee àdduna ci bi ñuy reer la laaj téere ñu jox ko mu tiim téere bay liir kenn ca doome ne ko ah waaw munoo laf nag téere bi mu ne ko sama jur daf ne mu woon bu ma jël bind bis bu ne naa jël bind bind bi laa doon jël nii ndekk mooy bindam bu mujj ay minutes yooyu la gën a àdduna ndax bañ a jël bind kon nag nun tam buñ jël bind suñ daal dafa ma mas a fekk dëkk mu ñu wax njote góor gi Ousmane Kan fa la dëkkoon mu ubbi daara ji di jàngale njàngum guddi góor gi kan Kane Cheikh Moustapha ñëw fu mu indi kayam ne ko damay jàng mu ne ko jàng lan mu ne ko ci ci daal ji laa nekk Cheikh Moustapha woo ma ñëw mu ne ma <laughs> yow moom jàngalekat yi mu naa ah, mu ne mu yaay ci gën a muus ma ne ko lu xew mu ne ma comme fexe nga ba góor gi naan alifun <laughs> waaye loolu rek la mbég ca mbég moo xam ne saa bu ñëwee ci dëkk ba balaa toog rek ne ana góor gi Ousmane yaa ngi jàng ba léegi mu ne ko waaw mun foo toll góor gi Ousmane wax aw araf wala wax wax laaya mujj na daa dëkk bi ñee ko ci li ko sëñ bi di woo di ko laaj fi mu toll waaw saabu ñëw laaj fi mu toll léeg-léeg góor mu ñëw góor gi Ousmane ja tari tabat ya daa lii laa fi Quraysh moo xam lu muy tari waaye da ko cay reeree joo xam ne kenn mësu koo gis rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kon ma ngeen baal ma ci guddal gi damaa bëggoon wax rek ba ngeen xam ne bég naa mu daal di delloo micro bi ñu nga xam ne ñoo ko yoroon yàlla na yàlla boole sàmm def de barke ci daara jeeg daara yu ko wër yëpp yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Euh, jërëjëf oustaz euh, kàddu yi am na solo kàddu yi soññee la kàddu yi ñaax la ñu ngi lay ñaanal yow itam yàlla mu gën laa taxaw gën laa sàmm gën laa aar euh, ndax. danga bokk ci duwaat yi nga xam ne dañuy wooteel diine lislaam loolu uh, wax dëgg gis nañ ko fii ci réew mi ak ca Sénégal ak fépp rek kon nag yàlla na la yàlla taxaw sàmm la aar la te itam uh, gën a dëgëral uh, jéego yi ba fa nga bëgg àgg yàlla àggale la fa te daara ji itam sunu borom gën koo barkeel jàppale itam wéyjur yi waaye jàppale itam ndongo yi ba li nga xam ne moom lañ bëgg ci ñoom ñu def ci lu kawe njortu te jàppale itam soxna yi bu baax a baax euh, kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm di jégalu ci kàddu yi rek euh, kon ñu yëkkati ñu yemale foofu kàddu gi rek wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismil